jërëjëf ami téléspectateur people 221 yi ñuy suivre ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar bu baax a baax di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku ci tey nag ñu am mbégte ci ñëwaat fii fii damay wax ne suñu kër la wax dëgg yàlla borom kër gi ubbil ñu ay portam tey nag moom lañ fas yéenee waxtaanal parce que bu leen fàtte ni tey mooy troisième jour bi nga xamante ni joxoon nañ ko kii di Pawlish Mbaye muy délai bi ñu gis tamit ay révélation yoo xam ne semaine bi am na ci digganteem ak maa ngi wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu di ñaanal jullit yëpp ci aljuma gi ndax dafa am ngëneel loo xam ne beneen bis amu ko am na saar ci alxuraan suratu juma ci leen bindoon yonent yàlla aadama ci leen ko dugaloon aljanna ci leen ko wàccee àdduna yonent yàlla aadama euh, ci la yomal xiyaam di teru ci lañuy ñuy yàlla muy sang bisi bés boobu le am na ñetti place yu ñu werante ne bisi nangu ñaan la mooy fu fajar gi xare fi jant bi di wàccee ak fu ñuy jullee aljuma fi imaam di toogee balaa jóg su yàlla dëxëñee ngëneel yooyu ci bés dafay wane ngëneelu aljuma waaye xaddis wax na ci ñeent fukki yoon ak ñett ci ngëneelu aljuma mu ngi ci saxiixul buxaari ak muslim yan yàlla dajale ñu ak ngëneelu aljuma leen daal am na mooy juif yi ñoom aljuma leen gën a ragal ci bés lu tax ñu ragal ko mooy daf leen leer ne yowmal qiyaam la euh, suy jot aljuma lay doon léegi nag bu àjjuma rëccee ñu jël samedi ak dimanche di def lu leen neex xam ne ne yowmal xiyam du teru mhm. beneen àjjuma ñu waajaat mhm. looloo tax am na benn nit bu ñuy wax Cheikhu Tidiane du yonantu waaye kenn la ci lislaam mhm. ne taal taalibe mi àjjuma fu mu jotee ci ngoon dajaloo leen di wax allahu wala laa ilaha illallah ndax ku mujj sa làmmiñ nga texe nga ne loolu nag juif yi di ragal di waaj semaine bu jot ne yomal xiyam la jullit ñoom ci ngëneel li leen yàlla jox. Mhm. sàggan neen ba foog ne yomal xiyam jotagoon ndax ku ne yaa ngi préparé sa màggat di préparé sa doom. Mhm. ngeen xam ne lépp yàlla dafay bette. Mhm. waaw bu la sa bu sa jabar ëmbee sax ba am juróom-ñeenti bis bu muy am doom dalay bett. yàlla lépp mbetteel la ndax dafa bëgg nga di ko gëm dafa bëgg ngay muñ. li ngay gëm da lay bett li ngay muñ dalay bett. kon di la fay bu baax a baax di am kontante. ci people 221. Mm-hmm. ndaxte euh, dafa bari lu rax ci seen liggéey. Mm-hmm. waaye gisaguma ko fii te yàlla buñ ko fi gis. mooy par parloo ci lu dul dëgg. Mm-hmm. ngir àddina. yàlla na yàlla musal ci site bi. jërë ngeen jëf. allahumma mu mel ni fi may njëkkee comme da nga dugg ci àjuma ji fan yee paase nga def benn sortie doon expliquer di dugg ci domaine sunu borom ci say biir wax yaa ngi doon wax naan man xaw ma yàlla gëw ma yàlla bëggu ma yàlla. yonent bi laa gëm yonent bi laa bëgg moo di polémique bu bari ci Sénégal. li ko waral mooy bu leen fàtte ne dafa am ay blogueur am ay youtubeur am na ñoo xam ne comédie lañuy def mm-hmm. mais am na ñaar ñoo xam ne dañuy politique far ci Sonko. Mm-hmm. di dagg seen vidéo mel ni dañuy wax ak askan wi fekk waxuñ dëgg. Mm-hmm. dañuy politigal sonk mu am ay blogueur yoo xam ne ci ay beauté rek la ñuy dox. ku ñëw ñu ne la sa kanam gi picc bi nii picc bi ne la ndax loolooy doxal seen mbir mu am ay blogueur yoo xam ne dañuy mbubboo lislaam ne dañuy waxal lislaam mm-hmm. mbir mu xew ñu wax ca mm-hmm. ñooñ nag ñooy ñooy yëkkati affaire yi mm-hmm. waaye man li ma wax duma ko defar duma ko tuub ndax dama xam li may wax li ma wax mooy man bëgguma yàlla et c'est bëgguma ko dama koo gëm yàlla den ko war a gëm man yonentu bi laa bëgg ndax den koo war a bëgg ma ne wóoluwuma yàlla. te c'est vrai wóoluwuma ko. lu tax ma war ko wóolu yàlla moo wax yonent yàlla Moussa na ko bul naagu ci suma pexe dontu ne dama la dugal aljanna ndax sa maam Adama moo la jiitoon aljanna te génnee naa ko fa. koo xam ne nag sañ naa bind aadama nu mu ko neexee. sañ koo dugal aljanna. sañ koo génnewaat aljanna. indi ko àdduna teg koy coono yóbbuwaat ko kooku lu ko neex def duma ma ko wóolu. man yonantu laa wóolu. ndax kooku dafa am kilifa. du lu ko neex def. dafa jub. ndax dafa am lu ñu tënk ne lii mooy jub te yàlla amul règlement. xam nga euh, footballu muuma arbitre gumba. mooy yàlla. yàlla amul règlement. bu ma tiimoon yonentu na ko amoo kilifa xas naa ko waaye su ma ko waxee yàlla tàgg naa ko ndax kilifa mooy ki mënal dara te war laa yilif te yilif la. kan moo mënal yàlla dara. kenn ku ko mën a yilif kenn mhm. kon loolu tagg la ci yàlla mhm. bu ma tiimoon Maodo ne jàngut xas naa ko mhm. waaye nabiyul ummi yonent yàlla Muhammad soo ko ne jàngoo tagg nga ko maanaam muu yi mel na ni lu rëy mais bu fekkoon ne jullit yëpp dañoo màndu toog xalaataat li ma wax duñ ci kii waaye nga gis naa suma rakk bu ma bokkal ndey ak baay moom ibaadu la mooy markaas seen groupe yooyu ñu yónnee ma ay jullit tuddee ma dajjaal maanaam fala fala tooñ ci jullit mën a yem koo xamut pas-pasam mm-hmm. xamoo digganteem ak yàlla mm-hmm. mu wax loo comprendre ixtilaaf fi ummati rahmatun wuutee ci suma xeet yërmande la mm-hmm. affront ko asem muslim nga laaj ko na ko lii ma dégg lan la ndax alquran den koy tawil ku ne nanga koy tawile ibnu kasir ak jalaalayni di bokkuñ ñu déggee alquran mhm. maam alaaji abdullahi mi yar baay jàngal ko ak maam alaaji abdullahi bokkuñ ak baay dé bokkuñ ñu déggee alquran mhm. ndax ku ne ak sa cër ci dégg-dégg mhm. te mbiram lislaam dégg-dégg daf ci am solo fahamu léegi dem neen ba tuddee ma dajaal ci man ma ne bëgguma yàlla est-ce bëgguma yàlla man yonantu laa bëgg yàlla dama ko gëm dama ko wéetal duma ko bokkaale laysa ka mislihi shay'un yàlla moom dafa am lu spécial dama ne yàlla amul doom. Mhm. et vrai. Mhm. lu ko neex lay def. Mhm. yàlla amul yar parce que kenn yaru ko. ma teg ci ne amul kilifa. dafa ñàkk kilifa moom yàlla. mais lii tagg la. soo ko waxee ci yàlla danga koo tagg ndax kenn mënta yilif yàlla. waaw ñu xam yàlla xàmmee yàlla xam suñ diggante suñ borom. xam yonent bi xàmmee yonent xam suñu diggante ak bi ñu xam ne duñ ma duñ jaxase mbir yi. déglu lu lu lu li yàlla wax daf ne. man ma xott ci suma biir tuur man yàlla. Mhm. ngir màggal yonantu. te moom man maay Mahmoud. Mhm. moom mooy Muhammad. Mhm. benn ñaareel ba mu wax ne man yàlla ak sumay malaayka yi damay julli ci yonantu. te musta sëlmal. moo tax yàlla du woor. moo tax yàlla du dem màkka di aji. du def dara ndax dafa occupé ci julli ci yonantu sallallahu alayhi inna allaha naka yàlla wa malaikatuhu ak i yusalluuna ñu ngi julli ala nabii mu ñeel yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam mhm. ba tey waxut sëlmal naa mhm. mu ne yaa ayyuha alladina amanu mu woote nag yéen ñi gëm yàlla mhm. ak yonentoog bés penc salloo julli leen wa sallimoo ta ngeen sëlmal ci yonent bi maanaam da ngay julli sëlmal moo tax da ngay julli ci yonent bi dem julli dem màkka dem or dem nangam parce que da nga am yeneen préoccupation mais yàlla moom ci yonent rek la ne diggante boobu nag ku ca xamul dëgg-dëgg la ca xew nit mën na wax nga foog ne dafa bokkale yàlla. Mhm. waaye daama daatu nasara fi mu mhm. man damay dàq li nasara yi wooteel seen yonantu ne yàlla la wala doomu yàlla la yonantu du yàlla. Mhm. du doomu yàlla. waaye lu dul yàlla rek yonantu doon na ko. waaw du ma mën a wax ne yàlla la. waaye lu dul yàlla yonantu doon na ko te xam nga diggante yonantu ak yàlla lan la. mu ngi mel ni benn ndox. mu nekk ci paan. nga bënn paan bi ndox mi roogaat ci siyo bi. Mhm. du benn ndox la. Mhm. waaye fële paan la tudd fii siyo. Mhm. waaye yàlla maye ba pare may boppam. lii di yàlla lii di yonent bi. fa la toll. su fekkee lii yëpp dafa kawe. léegi jëlal ne man. suma bàyyi nga delloo ma ci moom delloo ko ci bàyyam delloo ko ba ci aadama. nga delloo aadama ci suuf fooy delloo suuf dangay ngay delloo delloo ba yegg ci yàlla. voilà. mu mel ni démb dañu gis <clears throat> euh, nga def ay révélation ci ki nga xamante ni moo di Mara nga ciy développé di ci développé. dem ba di ci tudd ki nga xamante ni mooy ay tata mu nekk séeri wiiri wiir ni dafa am ñoom ñaar lu ñu séq est-ce que mën nga ñëndil ay leeral ci loolu. waaw xam nga dinaa ko doon daw sax ndaxte ndaw si si boppam bi ma ko tuddee defal ko vidéo. Hmm. jot na ay nit jooy na ba sonn wax na te la ma ca jublu woon du weer ko ndax jigéen la am na droit am far mais boo nekkee artist am avenir bokk ci réew mi ku mel ni ayta da ngay dafay jaadu nag nga xool fan ngay teg sa tànk ak kan ngay jëflanteel. Mhm. ndaxte ba muy dugalanteeg Mara Niass man xaw ma ko. Mhm. ba koy jox otoom di dem Dubai xaw ma ko ak yeneen ak yeneen. Mhm. ba ci ay photo mais pas photo yu vulgaire. xaw ma ko. mais Aïta moo jox oto Mara déedéet Mara moo jël otoom jox ko Aïta. Aïta am caabi Mara am caabi ñuy jëflante lu bari. bu doon Mara góor gu am sutura la. keneen du ko xam ba muy yegsi ci man. te artiste ak ku dul artiste nit nga rek da nga sentiment. Mhm. mais sa mbubbu artiste moo la dul war a permettre yenn yi. Mhm. kon conseil laay am ci moom comme sœur. Mhm. te di wax ne du lu ma fabriqué. man dama ko rus. lu ma xam lu leer la. donc foofu rek la don expliquer que euh, maasi mara gi dañoo jarul jëflanteel. surtout boo amee loo bëgg ak foo jëm. ndaxte amuñ avenir. lu tax ñu ñàkk avenir mooy njub. yàggul yaatuwut neexut. njubadi yàggul yaatuwul neexul waaw màndoog sutura moo ko gën te Mara jubut euh, ndax su juboon du mën a joteeg man ma am lu ma ko waxal ci loo xam ne réew mi yëpp dañuy xam ne lii dëgg la te rafetul. mu mel ni foofu noonu yaa ngi naan mu mel ni dafa am lu ma koy waxal réew mi yëpp xam ne lii dëgg la depuis boobu ba tey yaa ngi wax yaa ngi expliqué Mara yor na ay vidéo am di ko menacé te booba ba gaa yaa ngi toog farankulaa di xaar vidéo yi ñu bari nii est ce que vidéo yi nekkul loo xam ni da nga koy wax nii rek pour di showbiz. non xam nga su fekkee xaalis bi ko nit ñi di jox. Mhm. moom posté naa ko. Mhm. vocal yi mu doon wax ak nit ñi. Mhm. posté naa vidéo personnel yi bu ma bëggee nit ñi jàpp ne maa ngi ci dëgg ba yónnee ko. suñ may jàpp di taxaw ci kanamu juge dina am kuy jubile fële. ne xamoon naa ko bettuñu. nangam nangam. nit yaay sàmm sa bopp. bëgg man la man la. lum la dugal nga réccu ko. waaye bëgg a e, deflanteeg nit ba gaañ sa bopp. sóoraaleel ñi nekk sa ginnaaw. sóoraaleel ñi la bëgg sóoraaleel ñi nga xam ne foo waxee ñu tàccu la. foo génnee ñu teral la. teral la ci may la jàmm ndax yonantu mu ne sourire sarax la. Mm-hmm. foofu laay waxee. mais mm-hmm. man awma kenn ku may jox xaalis. Mm-hmm. léegi bu loolu amee da ngay demee xel. mais man wax naa lu leer. dama ne Mara bu jàppee ne yoruma vidéo na ma autorisé. ma xool am na vidéo am na ma nit ñu xool may fenam moom moo jubadi ci moom la des. mais vidéo yaa ngi ko yor. waaw moom xam na ko. moom Mara xam na ko dofut ba tey waxut. dina dugg ci internet bi fecc yi gaaruwaale fële mais ba tey. amul audacité ak fitu toog Cheikh Ahmed loo am ci man yónneel du ko def ba dina tukki. mu mel ni Mara moom nag dafa xaw a naqare jot parce que dafa mel ni yow wax ji li mu bëree ak li muy bëri bëri jotugoo ci Mara parce que dafa mel ni ko am benn ayisee yow moom topp yi rek ñooy génn di la topp lan la. waa xam nga xaj moom. Mhm. boo jegee boromam sax mu mbow la. Mhm. xajam yi ñooy mbow mais man àdduna. Mhm. moo yàqu may wax mara wax ñuy jokkoor maa jokkoorle mhm. mais niveau yi duñu benn mhm. buñ doon mbërum làmb man maa ngi xëccoo roi des arènes moom mu ngay mbapat mhm. ñëwagul Dakar sax xamaguñ ko amul licence CNG mais xajam yi mbaw li ma ci gën a neex mooy ni ñuy lekkante seen biir tey la aljuma billaahi wallaahi tallaay ci yàlla mu bind suma bakkan ñu bari ñu koy defal vidéo dañuy waxtaan ak man te lu bari lu ma xam ci maraaj ñoo ko xamal. koy défendre. waaw ku mu ngi guddal làmmiñam rek di rëy. gis nañ ko dem ñu def live di fecc. mais loolooy vrai faux quoi. billaahi man man ma wax la dara. mara daf ma tooñ. Mhm. te du nit ko jub. Mhm. te dinaa jëflanteek moom mais dama ko mujj yërëm. Mhm. li tax ma yërëm ko mooy yow ñi la wër di wax ne ñu ngi lay dimbale ñoo gën a jubadi ba pare ñooy weer say mbóot man am naa xam-xam mais yow ma bopp. li may wax ci Mareeb te muy dëgg fan laa ko xamee. Mhm. li question la. mais Cheikh Xasida ngeen dafa foo kon yaa ngi déggante ak moom. Cheikh Xasida. waaw bien sûr moom xam na ko di. teg na suma enregistrement appel fu mu ko jëlee xanaa sa xamul xam-xam na ba fabriqué suma appel. Mhm. moo ma ne sëñ bi maa ngi jéggalu dama def vidéo ci benn kilifa waxal ma man xamewuma ko noonu Mara da di suma nit. li ngay wax yëpp dëgg la waaye suturaal ko rek Sénégal nangam dafa nangam da moom moo ma expliqué nuuru laa nijaay Mara li mu jotee Mara xaw ma ko wax ma fi mu dëkk wax ma ne mu ngi nàmp doomi procureur ma ne ko luy loolu mu ne ma xale bu amul dix dix huit man. Cheikh Xasida moo la wax loolu. Cheikh Xasida moo ko wax ci biir coow li te ba pare ci guddi googu defaat na vidéo ci man toog ubbeeku Cheikh Ahmed na nga xam ne maag yow la di duul sa tubéy damay ree bay te muy la Mara da di nàmp doomu procureur. non nijaayu nuuru laa bi def ci man. vidéo loolu la wax. Ah, fii laa toog def ko ëpparlo am na ñu ko fekkee man du ma waxantu xaw ma loolu. Mm-hmm. te boo paree ma woowal la kenn ci ñoom kuy defar Mara vidéo su ma ko mm-hmm. deful rek du ma jullit. Mm-hmm. ma def ko ëpparlo nga dégg nga xam ne waxantuwuma. soo paree ni affaire bi. ma woowal la kenn ci ñuy defar Mara vidéo ëpparlo nga dégg. kon Mara dafa amul <coughs> capacité jàkkaarloog yow moo tax mu ngi dem di fay ay nit. pour non Mara da koo ñeme yow tamit gis nga Mara dofut. su dofoon du mën a naxi nit bay lekk ci ñoom million te xamul dara. Mhm. ca lam leen di woo <laughs> dofut de. Mhm. mais li mu bëggoon mooy xam nga nit ku lay laal. Mhm. da ngay bëgg au secours. nit ñi di dal lii nekkutoon classante. classante ma. man dama doon dëxati kenn gas ba mu ma suul ko nit ñi fàtte ko. damaa mën a xeex xam ni ñuy xeexee. te boo xoolee ni jeu bi demee nga xam ne waa ji ndaanaan la gars yi mbaw neen faalewu ma leen. ñooy mujj di tourné di wax. di jéggaloo ko expliquer ak joxe yeneen révélation fan laa war a mën a jëlee vidéo Mara ci benn fan. dafa def vidéo ci man ma tàkk rek affaire yi di ñëw révélation yi. parce que dama mën ni ñuy dama ne ku am kaa ci Mara dugalal fii. dama am kaa ba dama tiit. Mara amul xel. fi mu njëkk a xel mooy fi mu ma tooñee. ba pare tooñ ma ci média ku lekk wax naan ko sangoo ko toog nga ne ko kaa ñu wax du baax. dafa jum <laughs> mu mel ne yaa ngi doon def ay révélation aussi tamit nga ne képp wala képp koo xam ne tirande na la na nga ñëw man dinaa jàpp sa loxo yóbbu la cybercriminel ñu jéem def plainte yi wàllu plainte yooyu fan nga moom laay wax dama ne démb wax naa ko suma Facebook dama ne kilifa yi may woo dañoo mm-hmm. mujj yërëm Mara. ndax xam ne ne maa koy bugg a rey. Mm-hmm. te nekkut ne dafa bëgg jàmm moo tax tontu de ndax moo tooñ. Mm-hmm. mais dafa mënta wax. te mënta weddi. ñemewul mukk mu ne ñi mu wax ne ñoo ma jox xaalis joxuma leen mhm. ñemewu ko wax mukk ci àddina mhm. ñooñu noonu wax naa leen duma ma leen wor dañuy dem cybercriminalité dem dik porte plainte ko mhm. man du ma xeex ba mu yàgg ba jënd galaas gi nga su su ma waree bàyyi xeex du man du ma commencé man man lu ma commencé jekkale ko lenn moo ma mën a tàqareeg maara maa la tooñ baal ma te du ko def ci suuf de ci kaw la koy def walla maag moom pour def vidéo yi arrêté naa ko. ci Mara. ak Gum. Mhm. ndax bu ma ne bàyyi naa rek dootuma ci dellu. Mhm. man du ma lu wax waxati. Mhm. dama ko arrêté gum ndax vidéo yam doon def loo <laughs> xajam yooyu. génne war na ko kontam xam nga nu mu daan def. da ngay def vidéo ci man wax ci man lu ñaaw mu def ci kontam. ba li ruwaan nii wala ayatan la yonantu waxoon. kon ku jottali wax yonantu rek yonantu nga. moom mënutoon a wax. Mhm. parce que xam na ne day gën a saf. Mhm. muy utiliser xaj yu ndaw yooyu. Mhm. mais li gën a neex ci jeu bi mooy ñoom ñëpp dañu fóol la ñuy wax gëmuñ ko xamuñ ma. ba pare dof yow nan la nit di joteeg nit. yow nga ne da bëgg ne di ko supporter jël image am utiliser. di waxaat ci moom te xamul la waxut ak yow. te doon nga sa bopp kaso même trois mois. mais dama leen di yërëm xam ne muusuñ. ba pare su ma niveau yegguñ fa. maa leen gën a a xam kilifa yi. ñoom ñooñu maa leen ëpp wërsëg maa leen ëpp fit gën leen a xam ni mbir yi demee. Mm-hmm. comprendre nga. mais mm-hmm. ñoom xamuñ dañuy ñëw rek dugg tooñ. Mm-hmm. mooy Cheikh Ahmed maa ngi nii yóbbu police. te koo ci bëgg a jàpp mu saraxu ñaan la di jooy. amuñ sax fuñ làqatu. mais ku amul fooy làqatu nooy tooñee borom wéeruwaay. man képp ku ma réeree ak nga may saaga boo ma ne jàkk xam ne kii am na ci lu mu taxaw. nit ñi dofuñ xamante nañu. comprendre comprendre donc moom Mm, sëti sëriñ Touba yi ak sët sëtaat yi den ma yàgg di woo di ko yërëm. Mhm. ñaan ma njekk mu mhm. génnee vidéo yi. Mhm. nit doo ko topp ba mu sës. te booy xeex ba gañe da ngay réserver sa énergie. ngir bu beneen combat bettee. mais xeex doo ko topp rek di duur di duur da dem ba nit ñi mere la. mu mel ne ci sëriñ sëriñ Touba yooyu nga wax ni man dama seeraan benn live am keroog mu ni yow li la naqari mooy moom Serigne Saliou dafa def ci moom sept ans di ko bësal di ko di ko di ko di ko tarbiyu ba am ci ngërëmam yow nga dem Kaolack ñu jàpp la dóor la amoo sa ngërëmu Serigne moo tax tey nga taxaw bëgg a yàq image am bëgg koo jaxaseeg waa kër Serigne Touba yi. non dafay fen mm-hmm. Mara di bësal Serigne Touba juróom-ñaareet kon du mel nii Serigne mm-hmm. mm-hmm. ba pare man Kaolack aw ma fa Serigne su ma Serigne dëkkul Kaolack man. Gàmbi la dëkk. man juddu naa ba nekk mu bi dew Hmm. parce que leeru baay du Medina. Hmm. Medina dëkk la. Hmm. soo fa demee lenn saay courant du am yenn saay <laughs> yoo yaa ngi fa loolu du bàyyi ah, bàyyi ëpp na loolu. benn ñaareel ba man su dee am naa cër ci yàlla. nan laay gisee ku tarbiya wala yàlla ba mu ba ci yow ma iñaan ci. alxasadu laa yasuudu. yonentu mu ne ku iñaan du doon sang te man sang laa. mais man dama ne. ponkali góor bu am lu mu war a régler ponkali góoram lan moo tax mu daw ñu jàkkaarloo toog waxtaan. Mhm. man de maa ngi koy bëgg di ko daw mais moom day daw day toog rek ba tu taal laay fa moo ki nitam ñu ruube dawaat de nëbbaat. Mhm. mais man Cheikh Ahmed. Mhm. du ma am réeroo ak su suma moromi góor mu di ma woo may daw damay oo yëpp ñu def ko direct. ku ne téye sa question di laaj. buñ fa jógee ku ne xam ku nekk ci dëgg. boroom dëgg du laxatu. borom dëgg du teg ay pion. Mhm. maanaam maa ko ëpp possibilité nit ñi di def vidéo ci moom. Mhm. ndax man am naa ay preuve. Mhm. tey journaliste bu ma jox preuve bu leer am nga droit wax ko information la. mais jox ma benn journaliste ne waxal ci Mara. parce que damaa mën a wax. ba pare mën a waxal suma bopp xam li ma war a wax. xam ni ma ko waxee ba nit ñi man koo dégg loolu yàlla ma ci defal tawféex. du ko bind du ko waaj. donc waxam jooju du dëgg. man su may sëriñ dóoruñ ma. su fekkee waxam ji dëgg la. kon sëriñam yaru ko. Mhm. defut ci moom baatin. Mhm. ndax fen ak tappale la nekkee kon sëriñam baaxul. Mhm. suñ déggee wax ji rek ah. waxuma Serigne Saliou de. <laughs> kooku ñemewuma wax ci moom lu dul yiw. dofu ma jinne jàpp ma kooku moom kenn du moom. da nga koy tegee boor maaraa laa wax. bu dee lim ne aw ma suma ngeen ma ne Serigne den ma dóor. ma tontu wax jooju ma ne. kon moom Serignam du dara. ndax nan ngay amee Serigne tarbiya ko ba mu gërëm la. ngay volé di laal ciy caga. di faju infection. di def lu bon bañ lay vidéo di ko am. ngay nax doomi jàmbur yi am amee seen àq di lekk seen xaalis tey mbubboo sëriñ. xam nga wax ju nekk ak tontoom. donc loolu mooy tontu waxam ça ça c'est pas vrai. man su ma jotoon maara doom neex ndeem ñu takkal ko micro poudre ko teg ko. dana ñaq bay siit. te du ma fen du ma yokk. te ci en direct laaj tourner téléphone na ko kii du yow. boo ko weddee rek waxal ma tourner ci caméra yi. mais lu mu ko lu mais man mu mel ni dama dama déggoon ci sa biir wax mu am lu ma jaaxal loolu mu bëgg xam fan nga ko jëlee. Hmm. yaa ngi doon expliquer ni Mara dafa séparé ak soxnaam à cause de sama jabar day sawlaal. waaw xaritam bu mu doon waxtaanal téléphone. Hmm. moo ko enregistré enregistrement bi laa jot. Hmm. mu ne ko yow li nga def ñaaw na trop kii lu mu la muñal ak nangam Mara na ko day sawlaal mais jigéen juy sawlaal ba ngeen am ay doom te yow nga yàgg koo saw da ngeen di muñalante ku ne wees sa morom fi may jeexalee ci Mara bi nga taxawee ni man ay mbiri Mara noppeegum naa ci ñu gis dem mu def benn live di fecc di jubilé naan wax ji xamoon naa ne fii lay mujjee képp ku ma song ku nekk tôt ou tard di nga su fekkee man lay wax dafay fen reculer wu ma. Mhm. su dee man lay wax. Mhm. xam nga dafa wax rek tuddul tur. Mhm. su dee man lay wax. dafay fen te dina xam ne reculer wu ma. su ma namee dugg ci xeex di reculer rek santuma Cissé du ma ko def. mais xeex stratégie la. point par point la. Mhm. léegi wax naa li ma war a wax ci moom ba àdduna yëg. Mhm. bu ëppee rek soof. Mhm. da ngay arrêté loolu. jaar yeneen yoon. mais Mara dina xam ne man la ko seexal. d'accord mais nag suñ ma ñaanee. mu génnee sumay vidéo ma wax ba lu ma waxaat ci Mara répétition la xam nga li ma waxee waxoon naa ko. répétition la. wax dafa am njëriñ. mais pour nga am njëriñ wax boo waxee ba pare rek bàyyil nit ñi consommer nga demaat feneen. dina am fu ma jaar communication laa mara moom pare na. Mhm. waaye su jubilee. Mhm. fecc na musibaam. Mhm. neen toog ba ci kanam tuuti rek. ñu xam ne lu dul dëgg. fu ko dëgg fekk mën ko. man aw ma doole pour daane mara. aw ma cër pour daane mara. mais am naa pexe pour feeñal njuxóor gum nekkee ak bonni. am naa pexe ci dimbale ñim lekk seen alal ñu jot ko. dana fay de maara dana fay wala mu tëdd. Mhm. su dee réew mi am na loi bu amul loi nag moo ma jaaxal na dem fu ko neex sangoo lu ko neex. Mhm. menacé wu ko de néew ma maa koy tëj kaso mënu loolu. Mhm. dama ni. ñim lekk seen alal. bu réew mi amee loi dana ko delloo wala mu tëdd ko kaso. te ma wax. dugg fa nga war a dugg la jaar fa nga war a jaar teg lu leer procureur àtte. waaye ah, su foogee ne dama reculer. fen na de. d'accord dama taxawandee gum ci vidéo yi. Mm-hmm. taxawandee gum. Mm-hmm. su ma nee sama commencé waat tey. Mm-hmm. ak bàyyi naa du benn. d'accord loolu moom na ko xam.